way baatu laa ilaaha illallaah baatu laa ilaaha illallaah baatu laa ilaaha illallaah baatu laa ilaaha illallaah baatu laa ilaaha illallaah la taxal di woote lillaay dal yaaji boo dayalaay uyu leen li daaxu ay waay seydi roo walaay ku la way am ngërëm fa jaay jiboo dayalaay wuyu leen li da waay waay seydi roo walaay ku la way am ngërëm fa jannat yaa ji boo dayalaay wuyu leen li daaw ay seydi roo walaay ku la waay am ngaram fa jannate yaa dal ni yaa ji boo dayalaay wuyu leen li daaw ay waay seydi roo walaay ku la waay am ngaram fa jannate taxaw leen foofu de loolu lañu dénk de bu ñu mujjee puse bi mu réeree ci sunuy loxo Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam boroomam rek la doon dunda mag ñim fi nekkaloon boroom bi rek la doon lañ doon dunda bu ñu wane teyal mukk bu ñuy wax ci yàlla abadan du màndarga mu rafet comme li may wax léegi nag jaam yàlla yi moom boo bëggee ñu nelaw man commencé di wax ci yàlla léegi ñu dal di nelaw loolu moom raklu na lu raklu la te ñu ngi koy seetlu bu baax boo ci yàggee tuuti rek bébbal yi commencé ñenn ñi di xoolaat heure bi loolu loolu màndarga mu raklu la lu raklu la boo ko gisee saw say karaw day jóg ndax raglu gu mu raglu ndax du bokkul woon ci màndargay jullit bu demee mel ni kuy gane sib jullit loolu baaxul ci moom kan la yàlla masa daaneel bariwul fu nuy waaraatee ci yàlla nit mbëgg poto bi nit mbëkk poto bi wala daw yuuxu daanu yumbul loolu moo lay wan ne ñu nit sunu mbir dafa des dese nañ lu bari gis nga mag ñi bu ñu daan sikkar ci jàkka ji daan nañu daanu ay jëll ñu jiitu ñuy julli jëll yi ci biir jàkka ji jëllab lan est-ce que waaraate dégg déedéet laa ilaha illa booba bala ñoo julli nii ngeen ko waxe sànq lañ ko daan defe laa ilaha noonu la daan ubbee jullik Seydina Limaam bu jëkk moo tax dañ ko daan seetaan lalaaw fu sax ndax danay far mag ñaa nga naa laay laay taabi julli yépp nag juróomi julli yëpp noonu lañ daan def si kar soo xam ne xaw naa mat waxtu rasulullaay gën ji nekk ci seen biir di ko waxandoo ak ñoom te Baye Makhtar loo wax ne ne ku ma a dégg baatub Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ne ne mësuñoo dégg baat bu neexe ne bu Seydina Limaamu laay waaye ñoom ñoo fi man waaw ñoo fi man googu kàddu day ku ko dégg dëgg yàlla boo fa jógee dara dootu la jaaxal Seydina mu yëkki laa ilaha illallah bii ngeen wax bi ñuy yóbbee néew ñu koy dégg loolu nu mu doon demee ilala إلا لا منا خلقناكم وفيها نعيدكم تارة أخرى ننانك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ci mboolem lu nuy taxoo wala zikru laaya ya jooja di teg bay laaya nga naa laay laaya ilaaya laahu laaya ilaaya wasaabituuna bi zikri laayi jalla ala zikran kasiiran وتسبيحا بلا سامع لا لا مولم لوب دام دي بري غير وتوم غرم نواخ لا اله الا الله با دو ام يول با لا لا لا sarmadan abada layla naara bisik rilaayizil karami seen maam libaas ne fa saabituuna bi zikri laay jàllala xabla duxuuli ila salaati yaa karami ila la la شريك له في ملكه الإزم إلا يا لا لا إلا إلا وهات اللولو لأنه لا إله إلا الله كمال لا شريك له في ملكه الإزم

ne dañ naan yàlla daal waaw yàlla mooy ki jagoo mat sëkk ñun nag baatab mat sëkk dañ koy dugal fu ne déedéet mat sëkk amul ci kenn la am mooy suñu boroom mat sëkk mooy loo xam ne dara manu ca tegu dara manu cee wàññeeku dara manu cee yokk dara manu cee wàññeeku loolu mooy mat suñu boroom moom lañ tuddeel kamal al mutlaq mat gu ñu boyal maanaam matul ci lii matadi fii mat fii matadi fii déedéet mat ci lépp mu ne laa sharika lahu li annahu laa ilaha illa la sharika lahu fi mulkihi izami sunu borom amul dendandoo amul bokkaale ci nguuram gu jiitu gi xam nga xidam wil xadiim mooy lu amul fu mu tàmbalee ci yàlla dong lañ koy waxe loolu moom lañ tudde azal ni ngay waxe abadan ci li sa kanam azalan ci ginnaaw azalan mooy lu amul fu mu tàmbale azal mooy loo xam ne amul fu mu tàmbalee ci kenn la am kenn ñemewu kaa waxal keneen ku dul yàlla mawsuufun bil wujuudi waaw wal xidami waaw wal baqaayi waaw wal muxaalaf lil xawaadis man ngeen a fexe ba xam keneen ku dul yàlla mbaa leneen lu dul yàlla fu amul fu mu tàmbale kaana xabla ibtidaayi dunya moo tax ci mulki xil xadiimi googu muy wax ci nguuram guy jiitu ga nguur gu jiitu mooy nguur ak yàlla amul fu mu tàmbale te lépp amul fu mu tàmbalee maanaam amul fu muy yam ku dul yàlla loo fi yàgga yàgg yàgga yàgg sak am am na fu mu tàmbale am na fu mu yem. yàlla am ku yem ci yàkkam moom. waaw ku fi des ku dul moom ne. dinay jeex ca àtteem ba. laa looloo tax. sallallahu dafa am góor gu ko laaj. ne que ayu zan bi. akbaru inda allah mun ko yaa rasulullaay ñun de dañu bëgg xam ban bàkkaar moo gën a màgg ca yàlla mu nekk an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak mu ne mooy nga utal yàlla ndend maroom nawle te yàlla ci boppam bind la yow nga ëlbatiku di ko utal ndend di ko utal bokkaale mun ko summa ay toppalan mu ne ko an taqtula waladak maxaafata an yatama maak nga rey sa doom ngir ragal muy muy wàññi sëb dund mu yokk sab dépense loolu amoon na ragalal lekkandoo ak moom mun ka summa ay lu ca toppa ci màggaay ak rëyaay mu nekk antuzaaniya xalilata jaarik nga njaaloog sa soxna si dëkkandoo muy lu mel ni liñ doon wax sànq rek waaw da ko ci tudde dëkkandoo ngir orma ba mu am ak àq ya moo gën a feddalaku waaye ñooñu si des ñépp ñu ngi ci kon la mu jëkk a wax an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak loolu mooy li gën a jara moytu yàlla bind la ba noppi nga di ko ëttal moroom yàlla bind la nga di ko utal moroom loolu jar naa moytu looloo tax ku ko def boo deewee yàlla du la jéggal inna allaha laa yaxfiru an yusraka bi wa yaxfiru maa duuna zalika liman yasha nee yàlla du jéggale muk nit di ko dendale keneen léegi nag xewit la fi boo bëggee yëkki sa mbër da nga koy dendaleeg yàlla ku juyool ak mbindeef yi ci meloom ak léppam ku doylu ci boppam neel ku wéet la ca peyam ba la ak mbindeef yi xam ñu doon wax nga daf la ne ci meloom ak léppam maanaam bul sonn bul ko tënk fii di ko firi di ko di ko ku doyloo la ku juuyoo la ak mbindeef yi ciw ak léppam da la bëgg a wax ne ku wet la ca péyam ba da la bëgg wax ne ku xam beet xew-xew mooy mhm. ku dund ak ku dul dee moom du say ni damel sàmba yàlla suñu boroom doy na ko waar daal ci loolu la ñu mën wax yàlla doy na ko waar mu ne ku juuyoo la ku juuyoo la ak mbindeef yi loolu la ñu tuddee almuxaalafatu lil xawaadis wa xulfuhu li xalqihi bila misaal wa waxdatu zaati wa wasfin walfiaal wa war na lillaahi ñeel yàlla xulfuhu juuyoo gum war a juuyoo li xalqi mbindeefam moom la wax ku juuyoo la ak mbindeefam ku juuyoo la ak mbindeef yi ci meloom ku doylu ci boppam neel ku wet la ca ba bu dul benn du ñaar wax nañu la ne lu dul yàlla yàlla uute na ak loolu moom la góor ga wax nee ne wa sifu laa yasixu fi ma laa yura fa zaaka wahmun fi l uquli waftira nirale ñaari mbir manula wér bu fekkee ne manoo gis benn bi nooy dendale lii ak lii te benn bi masoo kaa gis yàlla kenn masu kaa gis naka nga ko mën a dendaleeg leneen lu dul moom kon loolu manul ne suñu boroom juuyoo nag mbindeef yi ci lépp moytul toog di xalaat ci dëgg-dëggi nu yàlla mel dëgg dëmbi dëggi dëggi jëmmam moo tax dégg nañ ko ca boroom risaala mag ñi dañu ko daan jàngal fii ci mbaaram jàkka ji man di jàng naa fi boppu risaala fii ci mbaarum jàkk ji ci sunu loxol maam kër Diop mag ñi dañu daan toog di jàngale boppu risaala ndax la ca nekk ci tawxiit moo tax waaw kon li ma doon wax mu ngi ñëw bu nuy wax ci sunu boroom waxtaan waak nalaw yaak xeet yooyu day am maanaam tànta bu ñuy waxtaane yàlla teyal daf fa yomb loolu baaxul kon nanu xam ne yàlla du moroom niroowul ak len len niroowul ak moom ku juuyoo la ak fam du ci loolu rek waaye ci lépp melokaan ya ak lu dul melokaan ya kon nañu ko xame noon lim ca teg lan la ku am kàttan ak na meel inna allaha ala kulli shay'in qadir jeex na ku xam bépp ma ñëw yàlla man lépp yàlla moo man lépp lu ñëw ci sa xel ak lu ci ñëwul yàlla mën na koo def dara tewu ko waaye ku am nammeel la du kuy tàndale lu mu def rek ci nammeelam la ko teg fa aalun li maa yurid la mu bëgg namm ka loolooy am innama amruhu isa arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun moo tax la ma doon waxa a ngoog bu kenn yaakaar nga benn yoon ne tollu nga ci yàlla foo xam ne bu la ñàkkee jaaxle waxal ka keneen ku dul yàlla yàlla la muy def mooy boo ko jéemee wan loolu mu xamal la ne yor naa lu la gën boo ma dummóoyoo ma andi lu la gën ak koo mën a ndax lu mu nam rek kun lay wax mu nek ci kun rek ci lay binde lépp kon borom namel la mom suñu borom subhanahu wa taala nañ ko bàyyi xel te koy wéetal jamono bi yëngatu na fu ngeen gisee kuy dendaleb sëriñam ak ak yàlla fëgg leen seeni dàll te dem waaw looloo am yàlla ko waxal boppam na nga buub loo fa am nga dem yàlla ne boo fa toogee yaak ma boole laak ñoom ab atte waqad nazzala aleykum fil kitab أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم يلا نين فنجين توغتي دي دغنيي دندال يالا اك اي منديفم لولو موي دي فوي اي كاوتي في يالا لولو موي دي نياوال يالا اك ديك يجي ndax kuy dendaleek yàlla ak keneen yaa ngi koy ñaawal yaa ngi koy reetaan yaa ngi koy yëj kawteef yi yàlla ku ciy dendale yàlla keneen yaa ngi koy yëj yaa ngi koy ñaawal mu ne fu ngeen gise jotaay bu ngeen di dégg nit di wax di xaabaabal di foye kawteefi sama boroom di yëj yàlla mu ne loo fa am jëlal te jóge foofu yàlla ne boo fa toogee lu ma àttee kooka moom laa lay àttee ëllëg kon nag lenn ci yu mel noonu wallahi mu ngi am ci réew mi bu leen toppandoo yooyu seydina limaamu mi sallallahu alayhi wa bés bu ñu waxoon ne moom mooy yàlla ñu tasaaroo ku ne uti foo dem waaye du ko mas a wax moom de du yàlla waaye mooy yonentab yàlla dara lu nekk ci yàlla nekkul ci moom nag nañ ko jàppe noonu moo tax yàlla musal ñu ci yenn kàddu yi ñu di ko jëme ci moom ci ku xam dara duñ ko mas a dendaleeg yàlla duñ ko mas a dendaleeg yàlla du mas am ndax jàngaluñu loolu xamaluñu loolu te bés buñ ko dendale woon ak yàlla ëllëg ñu mënal dara ca suñu boroom kon nag bàkkaar la bu yàlla dul jéggale mais di ku ko deewaale yàlla du la ko jéggal yonte yàlla isaa mu tey démb doon na wax loolu te it da ka feddali nee na innahu man yusrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna jaamu leen yàlla sama boroom di seen boroom te ngeen xam ne képp kuy dendale yàlla ak mbindeefam yàlla araamal na ci yow àjjana bu leen ko dara jaral li ñuy dégg bari na tey jii waaye loo ci corriger rek ñu ne da ngay attaquer ñooña bi may corriger doomu yàlla yàlla amul doom ma taxu fii di ko corriger am na ñu jàppe ne damay attaquer ñay wax loola gis nga gis nga doyadi gis nga doyadi lenn ci jullit ñi waaw am na ñu attaqué ñu ñu jàppe ne bu ma waxee aaya yii yii yii dindil yàlla doom di ko setal ci doom di ko jombale doom bu ma ko waxee maa ngi attaqué ña nga xam ne ñooy wax ne yàlla am na doom subhanallah ndax jaam bi jullit bi sañatul doomam di dégg sofaan ba muy ndaw saasu ne semaine bu ne ñuy utal yàlla doom loolu rek lay dégg déggul feneen ne yàlla amul doom bu màggee lu muy gëm ma laaj leen bu màggee lan lay gëm ni ñuy wax ne yàlla am na doom ni ñu amee sañ-sañab taxaw di ko wax ñu nit dañuy am sañ-sañab taxaw ne yàlla amul doom moo tax ma ne ñuy wax loolu wala kiy wax loolu ma ne kon moom bis bu jot mu attaqué yàlla mu attaqué ñooñu bal leen ma moom kon bés bu jot mu attaqué ñooñu lu tax mooy bés bu jot mu ngi jàng xul huwallaahu ahadu ku jàng xul huwallaahu bi gëna gatt atake kon yaangi attaquer ñi wax lolu parce dua fen lo nga leen ci lam yelit wala mi wala ndax ñu lolu safaan ba la wax ku jang qul huwallahu ahad bu fekke ne lolu moy suñu mentalité jun kon yaangi attaquer ñi wax ne yalla amna doom wuñu kenn dañuy suñu diine ñi tafsir alquran ba xarabanaa si dinañu romb aaye yépp yi nga xamee ne mooy wax ne yàlla amul doom bu dee yàlla amul doom wax ka mooy attaque kenn wallahi si dee ci attaque lañu la ñuy deewee insha allah ndax yàllaa ñu ko wax loo yàlla moo nu wax loo ne wax leen ne awma doom moo ñu ko wax loo waxay indi wax nun duñu attaqué kenn ku yor sa doy dig bop nak ya yor sa doy bop bu fekke yalla dafa wacce alquranam pour jundi ke neub ñay wax ne yalla amul dom ragaluñ ci dara setuñ ci dara yow mi wax ne ah, ñi wax ne yalla am dom amul luñ ci ragal amul luñ ci sor amul luñ ci set yow mi yàlla jàngal li wer nga ne man duma saña wax lolu muk ndax buma ko waxe dañu nan damay attaquer diw lolu ak doye di mënu nun dañuy jàngale yalla sunuy dom dañ leen di jangal ne yalla amul dom amul dendando budé lolou moy attaquer kenen keneen ma xamné ci attaque liñu dëkk ku baña attaquer kenen keneen bul suratul ikhlas, bu ko firi ko rek attaquer nga keneen bu fekkee ne ci ci mentalité yooyu lañu tollu ak ci tollu way nanu xolaat sunuy xel diine ku ne da ngay wax li nga gëm nun dañuy wax li nu gëm man day li ma gëm lay wax moy yàlla amul dom suñu borom wax na ne innal ladhina yaktumuna ma anzalna min wal walhuda min ba'di ma lin nas fi lkitab ulaika yalanuhum allah wa yalanuhum la'inun nee ne képp koo xam ne ngi li ma wàccee jàngale ka ci ay tegtal yu leer xamal leen sama mbir mu aju ci sama diine aju sama jëmm aju samay digle aju samay tere nga di ko nëbba ngir dab bànneex ab keneen mu ne ulaayika yalanuhumullah wa yalanuhumul laa'inuun yàllaa ngi tëkku ñooñu tëkkukat yee ngi tëkku ñooñu kon nañu moytu te xam sunu diine te xam ne jàngale sa diine jotewul dara ak attaque waa léegi ñun bu ñu nee limaamu laay rasulullaay kan lañ attaqué ñi ne limaamu laay du rasulullaay lañ attaqué walla yonent du am ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad du feeñati moom nga attaqué nit ki li mu gëm lay wax li ma gëm di moytu sama doom gëm sofaan bi dama koy jàngal la kooka di jàngali doomam kooka day jàngal doomam ne ko yàlla am na doom man sañ na maa jàngal sama doom ne yàlla amul doom loolu ana attaque bi si nekk loolu mooy attaque. waa kenn yàlla ma ñëw ma ñëw léegi waa léegi waaw léegi kan yàlla am am na doom attaqué wul ñi naan yàlla amul doom kon mu ngi attaqué ñi naan yàlla amul doom bu fekkee ne yow lëngëgëm boo ko waxee at. attaqué nga ka gëm safaan ba laay Momadou loolu demewul noonu nañ ñu bàyyi ñu jàngal sunuy doom li nu jàng ci téereb yàlla jàng ko ci làmmiñu yonentaam dimb ak tey te moytu ak ragal ragal du àgg ci yàlla nii ñuy waxe ne Seydina Limaamu Laay mooy Rasuulu Laay ragaluñ ci dara ndax mooy Rasuulu Laay noonu lañuy waxe leneen ak leneen ak leneen lu ñu suñu baroom ba wax loo yàlla wàccewul alxuraan pour ñu di ko nëbb wala ñuy ragal ngir ñu ne diwu day attaqué amul jàngale li nga gëm tekkiwul ne dangay ngay attaqué keneen déedéet li ñu gëm mooy yàlla amul doom amul dennandoo amul waajur kenn juru jurul kenn loolu la ñu gëm lay maxtaar loolu na ku yaakaar ne attaque daf ci nekk dama yaakaar ne danga dese wala boog ba léegi moomagoo sa bopp nañu bàyyi complexe ci lépp jàngale li nga gëm ñun dañuy jàngale ni limaamulaay mooy rasulullaay taxul ñu attaqué ñi koy wen te loolu la wax ba jóge fi nag amuñ luñ cay seet amuñ luñ cay ragal kuy wooteel yàlla doo ragal ku ragal toogal ku ragal toogal sunu diine la ñuy jàngale te tawxiid day lu ñu war a jàngal xale bi ca ba muy ndaw demal ci suuratu luqmaan id qaala wa id qaala luqmaanu libni yaa bunayya laa tushrik billah yaa bunayya sama ndoom xale tuuti as ndoom laa tushrik billahi bul bokkaale yàlla ak dara inna shirka la zulmun azim bul dendale yàlla leneen ndax kat bokkaale moom nee ne tooñ gu màgg tooñ gu màgg kon nag nañ ñu dimbali ku mbindeef yi gën a rëy ci sa bët toogal nun yàlla moo gën a rëy suñu bët lu yàlla jàngale ci alxuraan dinañ koy wax wax ak nit ñi ku jàppe ne wax ak nit ñi li yàlla wax da nga attaqué diine sàngam yaa xam bu la neexee kon Seydina Limaamu attaqué na diine yeneen yi ba tàyyi démb ak tey yonent yi nañu diine yi si des démb ak tey